ak ñi ko dëggal. ak ñi ko wan gannaaw. ak ñi ko wan gannaaw rek. ki indi dëgg ak ñi ko dëggal. ki indi dëgg ak ñi ko dëggal. yàlla may na leen loo xam ne. yàlla may na leen loo xam ne. ma ne nguur ak yàlla ga rek ko mën a ëpp de. bàyyi ne nguur ko mën a ëpp. na ne may na leen lu leen soob. ndax na may na leen lu leen soob. googu may am na affaire gaañ. seetal maag lu la soob rek xamul xam. sëñ bi yàlla rek am lu ko soob mu am. yàlla rek am lu ko soob mu am. ñii yàlla nee na may na leen lu leen soob rek loolay am. ñii yàlla nee na may na leen lu leen soob rek mu am. nañ bëri ba bokk ci ñi am may gu yaa googu. nañ bëri ba bokk ci ñi am may gu yaa googu. mooy ñu dëggal dëgg gi bàyyeekoo fa suñu borom ñëw ci ñun. mooy ñu dëggal dëgg gi bàyyeekoo fi suñu borom. ñëw fi ñun te lislaam te lislaam ñun ñoo di ay doomam ñun ñoo di ay doomam ñun rek la am moom rek lañ am ñun rek la xam moom rek lañ xam kenn war da teral lislaam lu mooy ñun doomi lislaam yi kenn war da teral lislaam lu mooy ñun doomi lislaam yi ndax ay noonam yépp ñoom ndax ay noonam yépp ñoom lu lu dul teraanga lañ ko bëggal. lu dul teraanga moom lañ ko bëggal. dañ ko du man rek waaye saa yeneen loolu lañ ko bëggal. dañ ko du man waaye saa su nekk kat loolu rek lañ koy bëggal. Eh, ñun ñi ko moom nag. ñun ñi ko moom nag kon. muy suñ teraanga. mu di suñ teraanga. ñu nañ taxaw ci. ñu it nañ taxaw ci. di ko jéem a teral. alhamdulilah lan nañ ci jéem. dund nañ ci ba bejaaw ci. dund nañ ci. ba ba jaay ci mënuñoo xamati beneen diine lu mooy moom mënuñoo xamati beneen diine it nag budul moom kon nag nañ bëre ba suñuy doom kon nag nañ bëre ñu bàyyi leen lislaam boobu ñu bàyyi leen lislaam boobu ni ñu ko suñu bàyyi bàyyee ni ko suñuy bàyyi bàyyee woon ku ci jur doom képp ku ci jur doom na ko dalal alquran na nga ko dalal alquran mooy téere jurit yi moo di téereb jullit ñi. ba lu ko ci yàlla wërsëgal mu xam ko ca. ba lépp lu ko ci yàlla wërsëgal mu xam ko ca. gannaaw ga lu muy xam lu soog koo xam. gannaaw ga nag lu muy xam lu mu soog koo xam lu ji. na ko sàkkal tur wu rafet. na ko sàkkali tur wu rafet. xamal ko ne lislaam ay diinaam. xamal ko it ne ko lislaam mooy sa diine. jàngal ko njàpp ak julli. jàngal ko njàpp jàngal ko julli. di jàpp di julli muy gis. di jàpp di julli mu di ci gis. dana ne danay wax ne jàng bu rafet la bàyyi ne danay wax ne jàng bu rafet la bàyyi ànd ak doomam bàyyi ànd doomam jëm ci li yàlla santaane jëm ci li yàlla santaane loolu dëgg-dëgg am njàng la loolu sa baay dem ci jàkka ja ànd sa baay ngeen dem ci jàkka ja loolu bu ëllëgee doo ko doom ji doo ko fàtte mukk ànd sa baay ànd sa baay di xoor di xoor. ànd ak sa baay di xaj. ànd ak sa baay di sa baay. ànd ak sa baay. di def lu baax. di def lu baax. di daw lu bon. di daw lu bon. am njàngala moo xam ne. loolu yëf yooyu ay am njàngala moo xam ne. wajjut wu nekk ameel na ko doomam. wajjut wu nekk nga ko sa doom. ndaxte doom. ndax doom. wajjutam dafa rëy ci moom ba nga xam ne. wajjutam dafa rëy ci moom ba nga xam ne. lépp lu baayam nekkoon. lépp lu baayam nekkoon. génne ko ca dana jafe. génne ko ca loola dana jafe lool. xam ngeen ne loolu lor yéefar yi. xam ngeen ne yéefar yi loolu rek a leen lor. mënuñoo bàyyi suñ diinay bàyyi rek. mënuñoo bàyyi suñ diinay bàyyi moo leen teel a dugg ci jullit ñi. xam na ci ñu xam sax ne diina ji du dara. xam na ci ñoo xam ne wóor na leen ne diina ji moom du dara. waaye rek mënuñoo bàyyi seen diinay bàyyi. waaye nag mënuñoo bàyyi seen diinay bàyyi daal moo leen ca wàcc. kon bàyyi bi jullit bi yow. kon nag bàyyi bu jullit bi sa doom yooyu itam. sa doom yooyu itam. na nga ko donale diine ji ba ko moy. na ko donale diine ji léegi ba du bëgg ëllëg bu ko moy. waaye na ne ku doon lu bon sax bëgg ko. mu ne maam alaaji daana war ne képp ku doon lu bon sax dañ ko bëgg. ko nag ku doon lu baax rawati. kon kay xamee nañ ci ne ku doon lu baax rawati. nañ góorgóorlu ba doon loo suñuy doom diina lislaam. nañ góorgóorlu ba doon loo.